asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 19 novembre 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag moo xam sunu làmb la record la tribune leewtoo point net ba ci Leewtoo TV fu nekk daal tey ay xibaar ñu nga fa bu fekkente ne yëglikaay bi di sunu làmb la moom Lac de Guiers numéro 2 bu écrit waalo moo xëy tey di wax que mu xëyee nag du kenn ku dul Gris Bordeaux daal nee na li leer ba leer mooy Gris Bordeaux moom man Lac de Guiers numéro maa koy wax na ko ñépp dégg pare naa ngir jàkkaarloo ak moom su bëggee na ñëw ñu bëre ndax nag jàpp na ne seen diggante moom combat jànq lay doon te day nekk combat boo xam ne nii day moom Lac li mu xam mooy su ko roogee moom dina tàng lool te nar naa neex tamit ndax ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk daal am na loo man te jàpp na ne Gris Bordeaux mooy mbër mi nga xam ne ci VIP moom laa dajeelagul ba tey Lac de Guiers numéro 2 mooy wax nee na avance su Gris moom suñ ko ko indilee du sax xalaat danañ ko coppet jël def ci jibaam maanaam ci poosam dal di ko téye di xaar combat ba ñëw ñu soufflé mu defanteeg moom ba mu saf-saf loolu mooy waxe ki nga xam ne ni moom moo di Lac de Guiers numéro waaye bu ñu demee fi nga xam ne nii day moom moo di ca record record nag dafa ñëw ci moom Lac de Guiers numéro 2 moom mook Tapha jàpp na ne ñoom ñaar day ndam yi ñu am ci seen combat yu mujj la mu leen jural boo xoolee bëriwul bu dee tafaatin la daan ba mu daan ki nga xam ne mu di Yékini Junior moom juralu ko lu bëri ndax boobu ba tey mu ngi balaade maanaam di wër mënagul a am combat boo xam ne nii bëree na ko waaye ka nga xam ne tamit mooy day Lac de taxaw la ba mu taxawloo Boy Niang ba tey record ay wax maanaam moom itam amagut loo xam ne nii jural na ko ko maanaam mu am li mu soxla ci combat loolu mooy jàngatu ki nga xam ne nii tey moom moo di Abou ci journal ba nga xam ne moom moo di ca record waaye bu ñu delsee fi nga xam ne nii day moom moo di ca fi nga xam ne moo di sunu làmb kan fay fekk nag moo di Tapha Nar Tapha Nar moom ci entourage su Ama de la bokk moom nag li mu xamle daal mooy li leer ba leer daal bu fekkente ne ko Nicolaï li mu bëgg maanaam jël mbërëm fay ko kase bu seer a seer ñun tamit na nanu joxub kase nu bëree bu ko jar ne na loolu daal mooy wax ji waaye leneen lu ñu fi wax lu loolu moom ay wax la joo xam ni daal du ko jar Tapha Nar moo xëy tey di wax loolu leneen loo xam ne tamit dafaanaar wax na ci nee na ki nga xam ne nii day moom moo di Aziz Ndiaye mu ngi conseil Ama Baldé sax ngir nag mu accepté wala daal boog ngir mu maanaam jàppale promoteurs yi ngir aider leen pour accepter prix yi nga xam ne moom lañ koy proposé ba tey tafaanaar moom mooy wax lool ci yëglikaay bi nga xam ne nii day moom moo di sunu lamb mu mel ni ki tafaanaar daal tey moom xëy na wax ay wax yoo xam ni daal bëri na ci fi nga xam ne nii day moom moo di sunu làmb waaye ba tey bu nu desee ci sunu lamb ba tey ci combat boobu Modou loo moom yëglikaay bi daa def ab jàngat ne na comme moom def na maanaam daal nekk na mbër moo xam ne li muy wàññil promoteur kase bëri na def na ko ci ñaari yoon ci digganteem ak Bombardier def ko ci digganteem ak Lac de Guiers est-ce que Modou du defaat lu mel noonu maanaam daal wàññi kase moom ñu jox ci ama ngir combat bi mën a taxaw sunu lamb xëy ba tey di wax lu mel ni ki noonu yëglikaay bi ba tey bu nu continuer ci yëglikaay boobu nga xam ne nii day moo di jàkkaarloo boo xam ne nar naa am tey war a dox ci diggante Jokkel ak ki nga xam ne moom moo di Maama lamin mu mel ni kii nag seen combat le premier décembre lañ ko nar a bëre kafa jaar nag du kenn ku dul ki nga xam ne nii day moom moo di Fallou njaay yëglikaay bi tamit ñëw na ci lu mel ni kii noonu leneen loo xam ne tamit yëglikaay yi dañ caa ñëw muy li nga xam ne day metti na di aw tiis te daal ci waa lamb mu mel ni ki nag Pape Dia démb denc nañ ko ca Touba sunu lamb ñëw na ci ci ay wax yoo xam ne ni wax nañ ko ci ak ay seere ki nga xam ne moo di way juróom mu góor daal nee na ki mu ñàkk day mooy ki mu gënoon a wóolu maanaam koo xam ne ku mu wóolu woon la ci boppam daal moom la ñàkk Bombardier ba nga xam ne moom moo di rakkam tamit wax na nee day dina metti ci moom lool mu duggati ci ab géew di bëre saa mu ki nga xam ne moo di Pape Dia ak ay bët ki nga xam ne tamit moo di Pape Sile di président écrit ba nga xam ne moom la ñu bokkoon moom nee na pour remplacer Pape Dia moom lu jafe-jafe lay doon Bombardier tamit mu ngay wax ci Leewtoo point net de nee na daal li leer ba leer de ki mu ñàkk moom maanaam nit la koo xam ne ci moom day xamul sax nan la ko war a mën a expliquer wala nu mu koy waxe waaye lu méttee métti la ci moom waaye nag yàlla moo ñëw ak ay dogalam ndax moom Bombardier ba tey yëglikaay bi di laa tribune mu ngi fay wax moom Bombardier nee na nag day xamoon na ne magam ji moom dina génn àddina balaa ajjuma ji nga xam ne moom lañ jëm ndax nekk na mbir moo xam ne médecin yi waxoon nañ ko ko loolu mooy loo xam ne nii day ba tey mu nga foofa nga xam ne nii moom moo di ca la tribune waaye ba tey bu nu continuer ñëw nag ci lambi simple ji record moom daa ñëw ci ngel jon mi nga xam ne fi mu nekk ni mu ko commencé baaxul maanaam ay defet amagul benn trophée boo xam ne daal ngel am na ko ci wala mu gañe ko yëglikaay ba moo ñëw tey dinu ko wax moom record ba tey bu nu continuer fa nga xam ne nii day moo di ca sunu lamb ci lamb simple ji tamit mu mel ne Alpha Samb moom ren ay bëgg-bëggam daal nee bëgg na teg mise bu toll ci fukki million daal xalaat na sax ren teg ko ci li nga xam ne moo di ci lamb ji waaye bu nu demee fa nga xam ne ba tey mooy ca Leewtoo TV promoteurs yi moom fa lañ leen di fekk mu mel ni ki nag seen digganteeg CNG waxtaan ya mu ngay continuer ñu daal ngir li nga xam ne moom lañ bëgg ci jàppal li nga xam ne mooy wàññi lañ lañ fay fa nga xam ne mooy ci national nationale wala yokkum combat ak yeneen yoo xam ne ni daal ay jàng ay jooytu la yoo xam ne teg nañ ko ci taabal yi mu mel ni ki nag démb daje woon nañu ak waa CNG ba waxtaan waaye loo ci mën a dégg daal waxtaan yi kon dafa nar a continuer waaye itam li leer ba leer ba tey ñu ngay wax ca Leewtoo TV ñoom promoteurs yi fi nga xam ne moo di stadium Iba Mar Diop la 31 décembre lañ ko naroon a tëj waaye léegi nag dañ koy yóbbu ba le 12 janvier ci la ñu ko nar a tëj buñ koy tëj nag tàggatoo bu neex la ca promoteurs ya nar ndax la ñu nar mooy delloo njukkal Matar Ba mi nga xam ne mooy ministre bi ñu dénk wàllum làmb wala boog réew mi daal di fa teg mise su 3 millions ngir tëje ko Iba Mar daal di nag jóge fa dem fa nga xam ne mooy ci arène nationale loolu mooy li nga xam ne nii day moom moo di bëgg-bëgg promoteur yi wala loolu la ñu nar def combat boo xam ne nag mooy ubbi sa son bi wara dox ci diggante BMW ak ki nga xam ne moo di Petit baabooy Pape Diagne Seras moom di ab banaanse la mu xëy di wax ne na kii di Petit Baboy moo gën a technique BMW moom loolu moo di ay waxam waaye li jara jàpp itam te jara bàyyi xel mooy arbitre bi nga xam ne soxna la maanaam di jigéen ñu koy wax Tening Diouf moom nag yëglikaay bi daa ñëw ci moom ne nañ demi final bi amoon bëri ki démb fa nga xam ne moo di ci Adrien Senghor moo ko arbitré Teneng Diouf la tudd kon jigéen ci la bokk waaye buñ nee Teneng itam damaa yorum Teneng man sama moom santul Diouf waaye ngoom la sant waaye lépp ci la bokk ndax lépp séréer si la. waa Leewtoo TV ñu nuyu di leen gërëm leen sant ba waxee ngeen àndoon si laaj bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar. Ndeye Kumba Fall fay naa la maa ngi lay ziar yow tamit ah di la nuyu di nuyu internetu Leewtoo TV ak fu ñu mën a ne rek ñu ngi leen di nuyu. waaw ko loolu am na solo nag ñu ñëw si journée yi xam ne ñoom na wax tey làmb ku si mel ni sunu làmb Record Tribune Leewtoo TV ak Leewtoo point commencé nag ak sunu làmb sunu làmb dafa xëy dalal nga xam ne mooy Lac de Guiers 2 Lac de daal nee na pare na ki ak bëreek ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux combat jànk lay doon te nee na combat bu neex lay doon waaw loolu la xëy wax tey moom Lac de Guiers numéro 2 la jatu ah du noonu lañ koy waxee la tigre kon a wax na dëgg combat jànq la parce que mosuñoo bëre te amateur yi ñu ngi reefe gis Gris Bordeaux ak Lac 2 ni ñuy réclamer Ama ak Modou noonu la ñuy rek noonu la ñuy réclamer Gris ak Lac parce que mosu ñoo bëri beneen bi ci des Gris Bordeaux nañ mooy mbër bokk na ci mbër yi dàq xeex ji làmb ji kee ñu tuddee defe naa fa bu ñu dajee jàppal ni dóor na fa defe naa ne kuñ ci indil sa avance morom war war nga ko mën a jël parce que làmb moom li ci a daje rek làmb neex saa yoo waxee ko parce que damay wax tout le temps que ne day kumba ñi toog di ñu seetaan ak di ñu déglu ñu gën a xam fukki yoon ak juróom li ñuy wax amateur yi combat bu ñu réclamé rek jàppal ne làmb ju war a am ma am la kon giri ak lak moom defe naa lak li mu wax am na de buñ ko ko indilee warta sax réfléchir parce que giri Bordeaux adversaire de taille la pour moom giri tamit lak adversaire de taille la pour moom loolu am na solo Babacar Babacar nag journal bi xëy na nag samp laaj ne tey jii est tey Modou Lo comme comme ni mu tàmm di ko defee rek tey jii du wàññi cachet pour jox euh, lii si cachet Ama Baldé pour combat bu mun a a daal sauver combat moom ak Modou Lo moom ak Ama Baldé. comme ne def ndax defoon na ko ci digganteem ak Bombardier def ko ci digganteem ak Lac de Guiers 2 kon mbër la bi nga xam ne kon côté boobu des moom danay faral di jàppale promoteurs yi waaw loolu tamit defe naa ne lu baax la parce que Modou damay wax ne moom mbër la bi nga xam ne tamit. comme ni ma koy waxe rek bokk na ci mbër yi nga xam ne ay royukaay lañ ci làmb ci comportement am yaa ngi dégg ci lépp li nga xam ne moom lay faral di def si làmb loolu ku ne gisal nag nga sa nga ko sa bopp kon yaakaar naa tey bu ñu ne est-ce que war a mën a wàññi ñu tegal ko ci ama pour comment bi taxaw ah, bu fekkente ne loolu promoteur ba démarché na ko ci moom yaakaar mu mën ko ko bañal fooguma ko mais tamit du loo xam ne force la parce que lool da koy neex rek xëy na ñaari combat yi mu ko def yëpp combat yi taxaw na ñu war ko bëri mu xam ne xëy na bu deful lii bu deful sacrifice bi combat yi du am mu def sacrifice sacrifice boobu en tant que frère en tant que mbër pour sauver bés bu nga xam ne promoteur ko jox xaalisam loolu tamit defe naa jëf la ji nga xam ne tamit jëf ju baax la te olof day faral di wax rek ku gis nen il faut ndey kumba faal nga ne nen a ngi waaye doo wax rek ne doone leneen nen rek nga ko mën a tudde loolu am na solo Babacar Babacar journal bi aussi mi ngi dalal ki nga xam ne mooy Tafana Tafana soo ko déggee moo nekk si écurie Ama Balde nee na nag soo gisee Ama Balde laaj 100 millions combat am ak ki nga xam ne mooy Modou lu nee na Ama Balde dafa war am xaalis si combat bi. luy lu yoon muy lu yoon la tamit. maanaam wax na dëgg waaw parce que tamit daf ci war am xaalis xam nga bëree combat ba pare ci yenn niveau yi jógee ci amoo ci dara itam ah c'est dangereux de ci mbër mi nga xam ne nii maanaam da amee famille ñu yaakaar la ngay. am lu bari lu la war kon defe naa ne tamit aspect financier bi dafa jara bàyyi xel comme loolu Tapha Naar wax ci Ama Baldé bu fekkee nag ñoom jàpp nañ ne côté finance bi moom 100 millions moo leen arrangé loolu tamit la ma waxoon la rek pata sama gënal ñam bi kuñ ci tëj nday kumba faal bu fekkente ne mën nañ leen koo fay xayrun buñ ko a fay tamit ah, ñu wëri leneen rek waaw looloo fi mën a nekk Babacar ak journal bi ngi wax nag démb démb la woon démb la woon robu Pape Dia bi nga xam ne mooy manager Bombardier nañu démb daal euh, mbooloo bu takk moo ko gunge fee si Touba si këram bu mucc bi waa dañuy waxaat rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un rek comme ni ñu ko faral di waxee parce que yàlla moo ko waxte du dañ ku juddu si kàttanam da nga dee ndax lépp moom la ku lu doy tamit danga nga wow kon li ma waxoon démb laay waxaat rek parce que ñun euh, ay jullit lañu amuñu benn référence bu ñuy jël fenn fu dul ci alquranul karim yaa ngi dégg ak ci waxi suñu borom ak lu mënta xew kon Pape Dia moomu dañ koy ñaanal yàlla yërëm ko xare ko aljana ah, nit nag maanaam saa yu faatoo ah, mbooloo ma koy gunge armel ya bëri jàppal ne borom nit bu baax la woon waaye bu si siggil ndigaale bari tamit mbokk ya mu bàyyi mbokk ya mu baax nañu kon defe naa ne moom mi dem nit ku baax la ñi bàyyi itam nit ñu baax lañu kon yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana mook bépp jullit ay mbokkam tamit yàlla na sarax bi yàgg seen loxo amin Babacar nu jógee nag sunu laam dem si record record mi ngi nii mi ngi def benn taxaw jàngat ne euh, ki nga xam ne moo Yékini Junior mi nga xam ne moo daan euh, Tafatine bi nga xam ne moo daanoon Yékini Junior ak Lac de Guiers bi nga xam ne moo daan Boy Niang ñoom daal nee ñu seen victoire yóbbuwu leen fenn daal. maanaam juralagu leen lu bëri. ah waaw loolu day ci jàngatu Abou Ndour moom noonu la ko jàngate que ni Tafatine jóg Yékini Junior ba tey lim ko jural. bariwul maanaam ci làmb waaw ah, parce que am na ci benn côté mën nañ ko nangu ndax daaw def naa ne balance te yaakaar naa ne loolu war woon na la tamit daan na Boy Niang mais ba tey ah ñu ngi dégg naan moo kii moo kaamee xëy na dégguñ lu concret kon xëy na côté boobu moo tax muy wax mais man ci benn côté dama naan bu dee Tapha Tine la ne que ñu ngi wax digganteem ak Modou Lo yaa wax digganteem ak Eumeu Sène di wax digganteem ak keneen kon loolu defe naa ne xëy na combat ya taxaw taxawaay moo amagul mais tax yaakaar naa ñu ngi leen di démarché Lac de Guiers tamit kera for nañ ci béykat yi ñu ngi doon démarché combat am ak Eumeu Sène ak yu noonu kon xëy na nag bis mbir maa sotteegul waaw mais xalaat naa dina sotti laa foog ñu ami combat. am lu di xaar di am yaakaar comme ni ñu koy waxee Juna aussi mi ngi def nag benn benn taxaw seetlu si ki nga xam ne mooy Ngel jon neen dëpp bu saison bu ubbee bu léegi ñu ngi si cinquième journée lutte simple mais ne daal Ngel John daan duñ ko doon woowee roi de Adrien Senghor amagul benn ndam. waaw ren moom boo xoolee amagul benn ndam ci lutte simple bi Ngel John ah parce que yu bëri yu mu dem. eggul quart finale ñu daan ko wala demi finale wala sax ay finale yu bëri ki dem finale lañ ko daane loolu nag li muy wane mooy kani rek lamb simple li ma la wax tout temps lay demee des fois da ñëw performant ne ci kaw a kaw a kaw mais des fois nga teglante ay journée yoo xam ne nii da ngay à côté xëy na loolu la mais ngel xalaali bi nga xam ne nii mbër la champion la mën naa bëre saf na xorom te waa làmb simple tamit soxla nañ ko kon dañuy wax rek que ah ñi ko yore nañ gën a liggéey rek xool li ko manqué ba fan yi trophée maanaam jogante bu mu dem ñàkk ko ñu renforcer ko pour que yeneen jogante yi ñëw mu mën ñu mën a am yaakaar mais nag làmb simple moom dafa yombatul fi mu nii parce que daje moo tax Babacar euh, dem nag suñ jógee foofu nañ dem si Leewtoo TV Leewtoo TV dégg mu demoon na si réunion euh, rencontre promoteur ak li ki nga xam ne mooy CNG bu ñu fa dugg euh, def nañu réunion daal mais bu nu génnee daal dafa mel ni am na ay points yoo xam ne ba léegi CNG d'accord gu ko Babacar waaw xam naa daal ba tey ñu ngi continuer di waxtaan ndax am na ay points yu ñu bëgg mooy ci combat yu ñu war a yokk ak ci yeneen ak yeneen yoo xam ne nii war a ko waxtaane ba tey nag ñoom ne ñu ngi continuer di waxtaan la leen gënal tam nga xam ne ñoom la ñuy wax ñoom bëgg nañ bu fekkente ne lu lu lu lu jàll la ñu ñu appliqué ko ci saison bii waaw moom moo leen gënal mais nag comme li ñuy wax rek comme waxtaan ba jeexagul te dañ koo sumb ñu leen di bàyyi di leen déglu ak ñi nga xam ne ñoom ñooy yore làmb ji ba xam fan la wan di mujj ak ay bëtam ndey ko ma Babacar nag suñu demee nag si suñu jógee si Leewtoo TV nañu dem si Leewtoo point net foofu aussi nit ñi xamal ni promoteur daal fas nañu delloo njukkal ki nga xam ni mooy Matar Ba euh, le janvier tuddee ko benn journée fee si stade Iba Mar Diop euh, avant ñu tëj ci stade bi Babacar. waaw loolu dama naan méritoon na ko parce que Matar Ba moom ak lu mën a xew moom ah. ministre de sport la bi nga xam ne bëri na ay sénégalais yoo xam ne d'accord nañ ci doxalinam d'accord ne moom la yore muy waa làmb xool ko kani dañ ko war a duppee drapeau la 12 janvier et sañum Iba Mar Diop promoteur yi def ko ci njiital ba Abdou Fall tegal ko 3 millions defe naa loolu delloo mbatt si ci ndaa la rek la def man pour man man Babacar da rafetlu naa ko te defe naa képp ku yëngutu ci làmb di nga ko rafetlu loolu am na solo Babacar si kàddu yooyu leen tàggoo di leen jox di daje suba incha allah mais balaa boobu mooy nuyu sama yaay mère Sow nuyu sama doom Mohamed Diouf nuyu eh, ki nga xam ne mooy Astan ne chéri Khadija Diallo depuis unité 26 di nuyu samay doom Mame Diarra Penda Rokhaya Fallou ak ki nga xam ni mooy Moussa di nuyu aussi samay cousine jóge Mauritanie eh, si mel ni Diobbe Salma ak njabootam yëpp nuy ki nga xam ni mooy aussi Malick Ngom mi ngi ñuy bëggee arbitre Malick Ngom ak eh, arbitre yëpp nekk CNG di nuyu daal axlu lamb yëpp yëpp Babacar. waaw Malick di ko nuyu di nuyu arbitre yëpp comme ni nga ko waxee ndax moom nit bu baax la bi nga xam moom ñuy bàyyi xel bu baax a baax Malick Ngom mais tamit di nuyu moom mooy meilleur arbitre pour man Teneng. waaw <laughs> di ko nuyu mais tamit di beral nuyoo kenn koo xam ne mu nga Sen TV ak Zik FM ñu koy wax Saliou Khoule ndax wax dëgg yàlla. Hmm, ku la lebal ker nga war ko mën a fay guddi te moom sa dama naan guddi la ma lebal ndax fan yi yëpp foo déglu Zik FM yaa ngi dégg mu naan Babacar Leewtoo TV Babacar Séri Teneng kon Saliou Khoule yàlla na sa jàmm yàgg barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam kontaan naa ci yow bu baax a baax a baax di la nuyu di nuyu groupe des médias yëpp rawatina seen kilifa bugaan mais tamit di nuyu waa Ecotra ndax tey xëy si nañ fi maa leen nuyu bu baax a baax ñoom bambaak matu Ecotra yëpp di nuyu waa jam ñaaju yëpp rawatina sama kilifa sama mag docteur Macoumba Diouf bi nga xam ne foofu la nekk biroom ci te nekk meeru lat me ngi maa ngi koy bu baax a baax di nuyu tamit fans yëpp du ma fàtte kenn Baye Assane Mesere gis naa ko fi ñoom tuuti yaay sar ñoom Khadiros Ndiaye Asi Diagne ci Mauritanie di nuyu waa Maroc tamit duma leen fàtte fàllu ibaa kenn da koo sañ a fàtte Iba mooy sécurité bi ibaa kenn du moom borom Pikine laa ko tuddee waaw ndeysaan di nuyu jarbaatam Pape Abdou Cissé l'international mais di nuyu tamit beneen international bi sama rak sama xarit Youssou Ndoye ak sama beneen international ñu koy wax Saliou Ciss man maay borom international yi Ndeye Coumba Fall maay tamit borom ñaari TV yi ndax ñi dañ naan Babacar li TV ñi ne Babacar Leewtoo TV alhamdulilah macha allah sant yàlla yàgg maaram bu suba incha allah si dóoru Babacar yi